jërëjëf Seexul Xadiim jërëjëf Seexul Xadiim eh, ku sëñ bi gàttandu sañ ngaa sant de tawar ngaa sant eh, gàttandu nañu eh, jërëjëf Seexul Xadiim maa ngi nuyu daara yëpp di leen yëgal xabaar bu neex itam ndax bi ma ko Cheikh Mamadou Mountakha di wax dafa ne ma maa ngi lay yëgal xabaar bu neex kon ñii laa leen koy waxee ndax lantinoor rek lañ fas yéene doon nee na weeru koor bi incha allah dañ koy delloo fa mu nekkoon dina toog teewlu njàng mi kuréelu xasida yi di yëkkati xasida Sëñ loolu comme ñu ngi koy defee fañ ko daan defee ci biir kër Sëñ Tuubaa kon ànd nañoo équipe technique yi euh, direction générale ñu ngi koy xool dañuy dinañu génn ay plan d'action opérationnel ci fànn gum ci mën a doon dimanche gën ngaa sori loolu kon na ko ñëpp xam sëñ Mayib Guèye de euh, kilifaam li nga xam ne mooy wasilaam di sëñ daam abdourahman Lo mës na am gaal goo xam ne ñetti nit sax attanuñ ko te mu war a dem ci sëñ Mourou Moussa mu ne kan moo ko mën a yóbbu sëñ Mawir ne ko bu ñu la ko ñemee dinaa fa ñu kon loolu téye nga xam ne kon pas-pas boobu ak façon boobu loolu mooy téye ci bàtte mais am nag téye ci saa yi jël loo xam ne da nga koy teg sa bopp ngir li ngay at yanu mu woyof waaye bañ ko ko defalee fekk na sëñ Mourou Moustapha ci Daaru Xuddoos gii ci Touba ba mu dikkee sëñ Mourou Moustapha ne ko biig de ba ngay jàng ca ndaam gis bu euh, ci ginnaaw gee maa ngi koy teew te boobu rajo am kon kooku doy na soññe ci suñu kuréel tey kon nag ñun am na nu sas ñi nga xam ne ñoom lañu nekk roy ci seen i tànk ñooñu ba ñuy dem yóbbuwuñu seen i ngànnaay dañ ko fay bàyyi ngànnaay yàlla kon nañu nañu laxasay wat xamni ne liggéeyu koor gaa ngoog seen laxat nak dal wax ne ñaari ngi ni yo xamantene ne du ma nangu ko mu ci mën ci liggéeyal sëñ Tuubaa weeru safar ak weeru koor <laughs> dafay alali sëñ Tuubaa yo xamantene mom ku ne man yëfi sëñ Tuubaa lay wax war na fay ci seen bir kon ma ngi ci soñal daara yëpp ay ci murit bu kenn bu kenn arrière bu kenn tib bu kenn kenn des lepp dina bax te serigne bi serigne ñu fas na yéene yëf yi yomb ci moom waaw bëgg na ko te ko ko jekku la ndax du sàkku ci sunu boroom loo xamante ne day yéex a jot te góorgóorlu kon loolu laa doon xamal ak daara yi na gaa yëpp jekk sëñ Lamine Diouf dina ci ñëwaat su ko defee ñu xam ne euh, liggéeyu koor gaa moom képp koo xam ne daal bëgg nga liggéeyu ziar bi woyof ci yow toy koor gi moom na ko jàppee teeñ rek te def ko liggéey bu gaaw bu dee xar bu dee gina bu dee euh, euh, bu dee xar bu dee gina bu dee fruit bu dee diw bu dee ceeb bu dee suukar nga xam ne gën ngaa néew ñaar ba ñetti saako par jour la ñuy utiliser ba ci tey yi démb rek sëñ Babacar Diallo ñu may wax ne glace di mu daan def nga xam ne bis bu set ah dina am glace boo xam ne mboolem kuy ñëw kër sëñ Tuubaa gi glace gi ngay jox moom dafa doon fàggu sa sa année ñi nga xam ne mooy boulanger yi ñoom seen am di loo lañ daan def ak ñoom seen Moussa Mbaye lañ doon def côté Touba kon loolu moom su ma ko tuddee rek bàyyiwuma benn membre ñëpp xam ne seen taxaar nee na dama lay xabaar bu neex liggéey koor bi day delluwaat fa mu nekkoon tey jii sëñ Alioune Guèye ak sëñ Lamine Diouf dama leen booleeg ay gan yu tedd yoo xamante ne dañ waroon dem ci sëriñ bi bañ demee ci sëriñ bi Alioune Guèye bu ko sëriñ bi joxee loxo daf ko ne bàyyi ngi wàcc xasida yi kon xam nga man su ma ko informé wul woon dinaa am kersa si yàlla ngeen ne ko sëñ Youssou wax nañu lépp kon wàññi ba jekk kon defe naa jërë ngeen jëf dama ko doon leeral daara yëpp ba kenn ku ne xam ne man bàyyiwuma kenn ñi ñu àndal ñëpp kenn ku ci ne jàpp naa ne sëpp nga ci ñoo àndoon ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ñaanoon ak sëñ Tuubaa kon xeebuma ci kenn ku ci ne cër boobu laa la jox kon ay ca murit ay ca murit ina laa maama